jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara niñ koy baax ji defee fajaru àjjuma ànd ak yéen ci Ar-Risala di jataay yoo xam ne dañ ci jàng li yonent àdduna <clears throat> dañ ci jàng li bi indil waa àdduna boo demee ca boroom xam-xam ba sayid saabiq ba mu bindee téeréem ba dafa tàmbali ca xët wa njëkk wa ma aataakum rasulu faqusu ñu ne ko waaw mu ne wa ma naakum anu fantahu ñu ne ko waaw mu ne yàlla na ko wax nun ñëpp ca suratul xashri professeur xam nga àdduna am na fi boroom xam-xam boo xam ne moo fi indi ordinateur ginnaaw yàlla am boroom xam-xam boo xam ne moo fi indi big am ko fi indi puso ba fi indi bantu secrétu waaw bant yi secréto ndaw ku ndaay bu ñu añee ba noppi waaw di ko secréto bant yooyu ku ci nekk loo fi indi mu am koo xam ne boo demee ca ndar daanaka mën nañ ne moo fi indi ceebu jën ñu koy wax penda waaw nga ñëw ci sunu mag ñi mag mu ne nga gis lu mu fi indi ci ngay gisee ne alayhi salaatu kenn du moom mu indi loo xam ne international la loolu mooy arisaala <clears throat> li mu indi mu indil ko umma bi yëpp waaye indil ko waa àdduna tabaarakallah bind bi weesu ci arisaala ñi ngi ko amoon ci yi nga xam ne mooy sobe yi nga xam ne mooy sobe yi waaw aji xaasim keroog jàpp na ci benn ba tabarakallahu woote ca téléphone laajaat ko jërëjëf xaasim lu looy lu looy njàng mi kon limoon nañu sobe yi an najaasa sobe mooy luy taq nit te waru koo taq su fekkee dafa am audience ak boroomam waaw sobe mooy luy taq nit te waru koo taq bu fekkee day am audience ak boroomam gisoon nañ ci médd gisoon nañ ci deret gisoon nañ ci yàpp mbaam xuux gisoon nañ ci euh, saw ak magum saw bu doomu adama gisoon nañ ci ndox mu tudd wat yu di génn ci doomu aadama ak mas yu waaye ak almani yu bokk na ci xeeti sobe yooyu lépp loo xam ne duñ ko lekk am sawam maanaam lu araama lekk ak lépp loo xam ne daa araama lekk euh, magum sawam gisoon nañ ci jàllaa la mooy ganaar guy dunde sobe te sobe rekk lay dunde ñu gisoon ci sàngara <coughs> waaw alaaji xaas walla alaaji xaasim ñu ñëw tey kon ci nu ñuy dindee sobe nu ñuy dundee sobe waaw loolu mooy bind bi tey nu ñuy dindee sobe ginnaaw bi ñu gisee ca ca ca sabe sa xaj kalbu <coughs> gémmiñ gaa yuut ya sobe léeg-léeg day taq ci yére mbaa mu taq ci yaram sobe léeg-léeg day taq ci yére mbaa mu taq ci yaram bu taqee ci yére mbaa ci yaram lay tàqale sobe saag yére ya mbaa yaram wa dañ koy fóot bu dee yére walla xay bu dee yaram ñu raxas ko walla ñu ragg ko ba ñu set waaw bu fekkee lu ñuy teg bët la waaw ndax léeg-léeg sobe taq doon lu ñuy teg bët mu mel ni deret góorgóorlu ba mu dañ ci yër ya rek <clears throat> waaw fóotal xayal raggal sëngal su fekkee lu lu te bët di tege la nga fóot walla nga raxas waaye ba noppi ngay gis ne deret ji kat ku xool fim mu nekkoon xam ne fi la nekk lislaam ne la baal naa la loolu <coughs> waaw yow daal fóot nga ba noppi waaye gis nga ne tur bii nii fii ku ko xool xam ni fii la dara ji nekkoon sunu borom ne la baal naa la loolu wala sharia ne la baal naa la loolu waaw moo ñu tuddee eh, eh, tâche <coughs> mu ne bu fekkee luñ dul teg bët la sobe su bët dul tege lu mel ni mu saw moom fóotal rek te gëm na set na seytaane nag léeg-léeg mu liggéey foofu ba jaxasi xelum nit ba nit di tàmbalee bëgg su muy ay yéreem génn ci mbedd mi bu leen ko nangu dañu jële ci asma bintu abi bakarin waaw asma doom la ci abou bakar saddiq ma àndoon ak yonent ba ba ñuy gàddaay asma mi moo yoroon information ci wàllu mbirum gàddaay <clears throat> yal na yàlla gërëm ko mook baayam nee dañoo toog benn bis jënd jigéen ñëw ca yonent ba alayhi salaatu salaam ji ko laaj gis nga lii lu am solo la laaj boroom xam-xam boroom xam-xam it ubbeeku ñu di ko laaj am na solo de ak am solo alayhi salaatu salaam jigéen bu ñu ne imraa mooy xabeesu ko bu ñu ne almaratu ku ñu xam la ci waxin nag léeg-léeg nga dégg ñu ne jaa a rajulun wala jaa a maanaam bu ñu nee imraa rek jënn jigéen rek mooy kii am accès ci yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul woon ku ñu xam ca penc ma waaye question la am day ubbeeku da ko koy laaj sunu magum daaraan ci liggéey léegi ba am solo sëriñ Mouhamadul Amin Sall bu aji Abbas Sall rahmatullahi alayhi mooy xeeti fataawaa yooyu xeetil tontu laaj yooyu <coughs> waaw xeeti tontu laaj yooyu <laughs> lay ndeysaan sunu magum daara ma la ca Fass Touré Hadj Abdoul Aziz ku ci bàyyi xel la ci laaji gaay yi waaye <coughs> asma nee na jigéen jëne yonent ba ihdaana yusiibu baxa min damil hayd kayfa tasnau bi mu ne ko nun jigéen léeg-léeg nu gis baax nun jigéen léeg-léeg ñu gis baax mu ne bokkuñu nuñ koy topp tooxe koo ci xam ne deret jooja dafa laal si yére nooy def ci nooy def mu ne ko euh, wokk wokk ko xooj ko wis ko te julli ca waaw wokk ko li muy tekki mooy boo ca defee saa tuuti fete ko fete mu ndaw waaw yokkaat ca ndox fete wis mu ne su la neexee mën caa jullee waaye loolu mu wax noonu soo ko déggee <coughs> dangay dégg ne mën nañ ko def ba noppi nga xool gi si tache loolu des ci yére bi te jóge ca sobe soosee lu ñu baale la nee na su fekkee ne yére jigéen dafa gudd bay buubu ci suuf waaw nee na moom a koy laabal ajiwul dem ca ndox mooy dindi sobe sa ñu ne ko ha mu ne waaw ndax jënn jigéen imraatun ba tey an namraatan dafa ñëw ci ummu salama umu salama soxna la ca alayhi salaatu wasalaam mu tax soxnay yi gaa yi war nañoo man di tontu masalay gaa yi walla masalay jéeg ji ni ñoom hmm, waaw waaw waaye loolu yombut léeg-léeg <laughs> yombut de waaw sëriñ bi tontu masala soxna si tontu masala yombut de <clears throat> waaw nee na jigéen ja ñëw ci umm salamate ne ko inni utilu zayli wa amshi fi l makaani al qadir ne na ko man sama yére damay sol yére yu yu gudd loolu la ko jigéen ja wax dafa gudd bay buubu mu ne ko waaw mu ne te léeg-léeg ma jaar fu setut mu laaj ko umu salamata umu salamata ne ko waaw dégg naa sama sëriñ bi dégg nga de kon waaw dégg naa sama sëriñ bi mu ne yutahiruhu ma baadahu rawahu ahmad wa abu daawud yutahiruhu ma baadahu maanaam bi yére bi buuboo ci fi nga xam ne jàpp nga ne sobe la bu buuboo fu amul sobe fa amul sobe mu fa fa fa taqut mooy setal waaw fa fa taqal loolu yére booba fóotuñu ko dafa diree ko ci sobe diree ko ci fu amul sobe fi mu diree ko fi am sobe la ko taq ba mu diree ko fi amul sobe foofaa ko dindi masala la mu am solo tabarakallahu te dox diggante imraa ak ummu salamat arisala ñu koy am ajuma jot ci waxtu bi mu ñëw ci beneen tomb mooy suuf su sobewu nuñ koy setale xaasim suuf su koy setale mooy su fekkee ne suuf daa am sobe lu mel ni saw walla magum saw ndox a koy setal walla ndox bokk na ci ya koy setal hadiisu abu hurayrata ba ustaas Cheikh Tandian radiallahu anhu def ne xaama arabiyun waaw benn arab boo xam ne bii ca kaw ga la jóge te yor jikkay kaw kaw waxin la ci nag waaw mor li xew ci wàllu lii nuy waxtaane moom xamu ko loolu laa bëgg a wax mu ñëw ci jàkka ji ñépp a nga toog ca mbaarum jàkka ja muy saw ci jàkka ji hmm? waaw waaw boo koy <laughs> xam nga ki xaw xamul li xew waaw càlle la jóge gan la Dakar muy tuur ndox dem ci jàkk ja sëtëtëtët ñi xam li xew jóg ba ko song ak seen yet gis nga fii Oustaz Mbàkke ñuy jàngale daawa ñi ngi koy jàng waaye dégg addis bii amal nañu njariñ lool ñun ñi jéem a naan daxal a dugg na xar yi génn ak ñoom aadama Jeng wax sa xalaat ñi ñuy déglu kii daa xamul li xew fële la jóge mu ñëw di saw dem ca jàkka ja di saw xam nga ki xam li xew day def ni kii dafa yabaate loolu lay loolu lay foog ni ko wolof di wax kii dafa yabaate waaye moom xamul li xew mu tax ki yàlla yónni woon sunu alkitaab bi weesu ngeen dégg fa an xasakum waaw mooy ki xamul li xew ki xam li xew rek moo man moo ko mën a defar te teey yàlla ku li xaal waa ji saw na si jàkk ji gaa yi jóg ak seen yet bëgg koo dóor fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam daawuhu yontu bi ne bàyyi leen ko bu kenn def dara luy loolu mooy kii xamul li xew ñu bàyyi waa ji mu saw ba noppi ba defaru yonente ba digle ne jël leen siwo bu doon tey ngeen def ca ndox sotti ko ca saw ma waaw ñu daal di jël ndox dem fam saw sotti ko ca mooy la nakam loolu li muy tekki moon kon mooy suuf mu sobewu ndox mën na koo dindi buñ ko ca sottee ñu sotti ca ndox waaye yunti wax daal di àggale addis bi nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu ko yàlla fayal bu fekkee nu lañ koy wax mu ne la fa innama buithtum muyassirin wa lam tubaatu muassirin aw kama xaala rawaahul jamaa mu ne yéen kenn yónniwu leen wala mu ne yéen dañ leen a yónni pour ngeen di wutal nit ñi solution waaye kenn yónniwu leen pour ngeen di indi problème allahu akbar fa innama bu'istu mu wa lam tub'athu mu'assirin yéen dañ le kenn yónniwuloon lu dul ngeen solutionnel penc mi seeni problème waaye war leen yokk penc mi problème bu ngeen reyee waa ji ci ci ci ne saw barab sàngam te ndox di dindi di di seetalum saw déggu leen saxaaba yi yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom it waaye mbokk yi dar si biir su mokkoon leçon bi su mokkoon yu baree baree bari ci pénc mi mën na cee jage ki xam li xew ak ki xamul li xew hmm? ndeysaan fa innama buistum muyassirin dañ leen yónni pour ngeen indil penc mi ay solution waaye yónni leen pour ngeen di yokki problème ah am solo la <laughs> yàlla yàlla dimbale da ngeen ñu baal xam naa ko dem tolluñu foofu naka noonu tam aljafaaf aljafaaf mooy suuf si fendi suuf si dafa sobewu jant bi lakk na ko fendi na sobe sa dem na waaw mu ngoog eh, abu xalaa abu xalaaba nee na jafaaful ardi tuhuruha waaw su ay Aysa waxaan na ko moom tam mu ne zakatul ardi eh, yabsuha aw kama xaala aw kama xaalat mooy suuf bu woowee sobe sa dem na bu fendee sobe sa dem na aw eh, ibnu abi shayba ca borom xam-xami fiqi la bokk mu ne lii nag su fekkee ne sobe sa nekkul sobe suy walangaan maanaam sobe su tooy di tuur yi walangaan ni mu ndox mu ne su fekkee sobe su tuur la di walangaan mu ne su ko laabal lu dul ñu dindi ko moom ci boppam walbati suuf sa gas ko euh, leeñ ko <clears throat> mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot beneen tomb bi bu nogoy dencoon euh, dax walla beurre ba fromage mu ñëw fekk bër bi walla fromage bi janax dee ca waaw mu ndax dañuy sànni bër ba yépp ndax sobeewu na walla nu ñuy def ibnu abbas mu ne yonent ba nee na bañ ko ko laajee su fekkee dangaa fekk mu jaxasoog lépp ndax bër ba daa tooy booleel bër ba ak janax jël lépp sànni bu fekkee dangaa fekk bër ba wow koŋ fi janax ji tëdd ngay dindi sànni ko lekk sa bër <laughs> ci wàllu sabe <coughs> waaw yu am solo la <coughs> li yonent bi indil xeet wi ngeen baal ma <coughs> li yonent bi indil xeet wi hmm? waaw ndax loolu daana xew démb daana xew démb bi de bi dencukaay yi melut nii mu mel nogay am soowam di ko wayal aj ko ca kaggu ga waaw mu ñëw fekk lu dee ca kaw wayal ma bu fekkee bi mu ciy dee wayagut lépp a sobewu bu fekkee bi mu ciy dee fekk na mu way day teggi fa loola nekkoon rek jëfandikoom soowam ndax soow yomb ko waaw yal na ko yàlla dimbale ti dimbale nu <clears throat> professeur ñu ñëw ci beneen tomb mooy derub médd maanaam xar mu médd ñu soxla der ba xar mu médd ñu soxla der ba ne nañ xar mu ñu soxla der ba ni def der ba mooy dañ koy laxunde laxunde naaru yi jóge woon gànnaar te doon ay jigéen waaw ñoom sëlma waaw sëlma <laughs> ñoom caane si waaw ñoom layla waaw <laughs> loolu ñoo ko daan def muy laxunde moom la Ibn Abbas wax ne yonent ba nee na bu ñu laxundeeb der rekk laab na isaa dubiqal ihaabu faqat tahur dabaxu googu nag ci lañ jële dàkkantalu Abdul Aziz ad Dabbaax yi mi ñu tuddee xaaj Abdul Aziz Dabbaax te wala fi jàpp ne daa baax la fekk ad Dabbaax yi waaw turandoo mbóoj lëxu ndékkat la woon ci boroom xam-xam bu rëy waaye fonk liggéey Cheikh Al Hadj fonk gum fonk boroom xam-xam ak yaatal gum mën a yaatal ak bëgg gum bëgg nit am métier tax mu jël xaj Abdul Aziz ad Dabbaaxi bu dul noonu na ngeen jubbanti ko ngeen <laughs> mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo suñ jotaayu tey ci vendredi mooy arisaala fi ñu nekkoon tey mooy nu ñuy setale yi sobewu yaram yére suuf beurre ak deru lu medd bind bi jeexut dañoo ak suñ ko war yëkkatee bu ñu ko dégloo benn yoon ñaari yoon ñett allah danañ ci indiwaat beneen bind bu bees bu topp ci bind yi ñu ngi jéggulu soxna yi di jéggulu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew méeg réew yi ko lu jub ci wax ji sunu borom la lu si jubut man mi maa juum du du du du moom